message bi weesuwul rek comme li ñu wax ñun waxuñu président may ñu dara waxuñu président deful ñu dara ñun li ñu bax rek mooy nañu comme ubbi nañ marché yi ubbi nañ casino yi comme salle d'entraînement yi nañ ubbi tamit lieu yi nga xam ni ñun fa la ñuy daane suñ doole pour am lu ñu suñu kër. ndax wayaan bi dafa doxatul fi mu nekk nii. non wayaan nu muy doxe te bu fekkee ka nga war a wayaan yi nee na la reste mais Ndeye Gueye est-ce que yéen toog ngeen ak ay autorité avant ngeen a def lii. Ah. est dem non non lii suñu initiative bu bopp la ñun ñoo initié am suñu initiative. ni dañuy def lii. wax waxtaanuñu ci kenn mais nag amul autorité. ñuy profito di leen waale amul benn autorité bu nekk fii ci département bi wala ci ville bi te wax dëgg yàlla boo woo ñu laaj ñu suñu suñu lan mooy seen xalaat. waaw nag géwél nag da koy laaj nakaram ndaxte dina métti loolu mu bëgg a dundee nii. war ngeen waxtaan ak ñoom. maanaam ñan la ñu war a waxtaan. maanaam autorité yi nga xam te ne war ngeen waxtaan ak ñoom ñoo xam te jàpp ngeen ne war nañ leen a dimbali. non ñu wax nañu autorité tey autorité yi. Direct, maire de la ville la Timbo recevoir parce que a mu déggee qu'on nous nañu préfet wax dëgg yàlla képp kuy kilifa nekk fii ci ville Pikine wala Géejawaay rek wax dëgg yàlla jot na ci sa coup de fil. mais c'est que. waaw ginnaaw bi ñu doon ñëw. waaw ñu xam askan Ngéwél ni mu problème bi nag mooy du du du du du ampleur la ci ut pour nit ñi war a ñëw. ñun ñoo am suñ initiative. ñun ñi am initiative bi ñëpp ñi ngi fi. pour wax lool rek la. mais mais non xamal xamal lan mooy problème bi ah. li nit ñi xamul ñun ay géwal lañu taaluñu oto taaluñu pono baare wu tali dañu ñëw uniquement rek pour wax li ñu metti loolu kese autorisation wala amu leen ko non looloo tax nag mobiliser wuñu nit ñi pour ñu ñëw waaw bés bi tey d'abord bu ñu nuyoo Sénégalais yi di sant yàlla di julli ci sunuy ñaari waajur ñu ngi sant Sénégal yëpp woote bi li ko waral jàmm rek ak salaam waaw jàmm ak salaam te d'ici une heure de temps kuy dem di nga am li nga yóbbaale te kuy dem di nga xam ne ndekete géwal moo bëri inspiration waaw dinañ grève duñu taal oto duñu taal pono duñu wax lu ñaaw duñu dox doxu ñaxtu mais dinañ ko def ci beneen anam bu yiw ak bu seey ndax fi mu ne nii dañ ne woon restez chez mais léegi dañu ne restez triba euh, nuñ koy waxatee prudent prudent macha allah ah ñu ñëw géwal yi